Attention, danger, qu'entendrais-tu par là Et le deuxième point serait le fichier électoral, l'éternel problème politico-politicien. Ça, par contre, je suis tout à fait d'accord. <laughs> <laughs> Euh, euh, am na am na benn vidéo boo xam ne dama bëgg ñu xool ko bu dee MD am na ko. Mhm. Euh, mu concerne Guy Marius Sagna Guy dafa demoon Nianing. Mhm. Guy nag ku ko xam xam ko ci parce que dafa am nañ xool vidéo ba pare après ñu ñëwaat. Euh, parce que nii euh, on force à quitter donc moom nag ay ay nervi la wax ne ñoo ko ñoo ko def nii euh, am na sax beneen vidéo boo xam ni xëy na wax ci mu ngi ni image bi voilà donc dañ ko sotti sable suuf et c'est comme ça que ça serait passé donc après nag wax na Euh, am na beneen vidéo boo xam ne wax na wax na tey donc euh, wala démb ci guddi mais vidéo bi gars yi dugal nañ ko tey muy xamle ne euh, voilà daf ko ki nga xam ne moom la jiiñ mbir yi mooy mooy ay nervis yu ko attaqué nervis yooyu nag dañu njott ne ñoom kii di Maguette seen nekk le maire de Nianing m m beneen vidéo bi boo ko amee dina baax trop kii di Maguette seen nekk maireu Nianing moom la ñu njort ne moo war a yónni ñooñu alors il aussi un fait mooy que espace boobu ñuy wax mu concerné foncier bi foofu euh, commune ba moomu ko donc maire ba en principe du ci lenn parce que moomu ko euh, c'est le directeur du COUD on rappelle monsieur mm-hmm. Sène Maguette euh, alors ce qui se passe loolu benn fait la beneen bi mooy que eaux et forêts la ñu wax ni ñoo moom foofu ça veut dire qu'il y a anguille, il y a problème. Mmh. Maintenant, a ce que Guy bañ a taxaw foofu di wax ko que ce soit. <laughs> qui a intérêt à ce que Guy bañ fa taxaw. lan moo war a tax ñu mën a njort wala ku mel ni Guy di njort lu jëm ci Maguette Sène Maguette Sène nekk ku bokk ci nguur gi yëpp ay question la donc aujourd'hui nu not position euh, en terme de commentaire du ñu ci sore dañu ciy ànd ak maandu ba mu gën a leer. mais une chose par contre mën nañ ci wax mooy ñu ngi lu tax ñu wax attention danger mooy ñu ngi fooye lu doy waar dañu gis ay nervi yuy agir gis nañ ko maatam Fuuta ci ay meeting yu fa amoon ñoo xam ni dañoo fekk waa dëkk ba di leen bousculer on a vie des vidéos te ñi ko doon def dañ ne ay nervi yu ànd ak waa APR la xam ba nag baaxul waaw te duñu fi wax luy xam mhm. yàlla yàlla fay lépp la ñuy wax Guy Marius Sagna citoyen sénégalais la am na droit dugg fu ne ci Sénégal comme ni ko président Macky Sall amee comme ni ko ku nekk si ñun amee ak keneen ak keneen ku dëkk ci dëkk bi c'est comme étranger fii am suuf massa ñun ñu fi dëkk te war a circuler alors il faut pas aussi nag ñu dem dans le sens de diw d'accord ñoo moom wala neexuñu du fi dugg ça pose problème kenn mënul interdire Macky Sall fu muy dugg fu mu dugg ci Sénégal xanaa sa kër gi nga moom te boobaa day négocier parce que domaine privé la encore que am na fu muy toll sax day am droit dugg fa c'est à voir mais lu concerne citoyen sénégalais buy circuler problème am na nit ñi ñooy interpeller Guy Marius <laughs> tëbul rek xam lu xew pour dem fa nit ñi ñooy ñëw solliciter ko lu tax nit ñi di solicité Guy Marius lu tax nit ñi demuñu assemblée nationale dañ ko yaakaar pourquoi demuñu ci député yi ne leen dañoo am problème suñu dëkk kaay leen ngeen régler ko non on va vers kii Marius parce que sénégalais yi dañoo am benn yaakaar ci moom par rapport à ce qu'il est en train de mener comme combat léegi un état intelligent ak ñi ñu àndal ils ne doivent pas lui en vouloir ils doivent s'en vouloir à eux-mêmes c'est-à-dire se dire que mais stratégiquement qu'est-ce qu'on peut faire pour que nit ñi bàyyi waa ji ñëw ci ñun alors l'amour on ne le force pas on le négocie et avec véhémence ak intelligence ak tact dinaa ko wax nag foofu ma tëjee foofu xasma. waaw nguur bi fi nekk ak ñi ñu àndal yal na yàlla kattanal leen dooleel leen barkeel leen yiwal leen roof leen ay baax baax ba ñuy réussir ci lépp. yàlla muccal leen ci nattu parce que nattu moo leen dal xam nga luy nattu. Mm. nattu mooy fépp di metti ñëpp di yuuxundoo ñëpp di riir jëm sa kaw. Mm. ngay ut pexe pexe nag du defar réew. xam-xam moo la defar réew. pexe sax mën na defar réew ci kaw mu sell. pexe pexe pexe pexe bu sellee xas ma. Hmm. pexe bu sellee. Ah. jikko bu rafet a tax. waa jikko bu rafet bu mën na doon pexe moom laa lay wax ne la tey jilee bu fekkee ni Guy Marius Sagna dem na ba dugg ci xolu nit ñi nit ñi woo ko ba foofu fii ak ña ngi egg ut pexe bu ñaaw ci moom di ko dóor di ko yónni ay nervi loolu xam nga pexe bu ñaaw la waaw loolu noonu dafay tax Guy Marius di gën a am euh, place ci xolub doomu aadama yi ah, waaye bu fekkee ni pexe mu rafet daal di ko gungee dem bu Guy Marius demee ñëw ñu déglu ko li mu fa jëlee indi loolu mooy pexe bu baax ànd ak bon fois bu boobaa ñoom dinañ avancer ndaxte pexe nag mënu mënut waaw kaay ma wax la. pexe mënut a ñàkk. jikko bu rafet. Mhm. ci pexe bu baax boobu. Mhm. xam nga nan la tuddee pexe bu baax boobu. wuy mhm. ma. waaw xam ne laa xam-xam. ba ñu indee xam-xam rek pexe taxaw. ñu ne xam-xam moo gën pexe. léegi li tax xam-xam gën pexe moo la xam-xam jikko bu rafet la dafay dem ci feem. moo sóoru football bi ñoo yam gis nga Messi dafa bare feem foo ko sóor mën na génn fa te des loolu mooy xam-xam mooy génie donc nguur jeunes moo koy yor nguur non non non xasma jubalul rek Pape Assane waaye xasma nag boroom jikko bu rafet hmm. dafay jubal jikko safaan dafay juum nit nag mën naa juum mën naa am hmm. jikko bu rafet ba pare juum wante ci mbir mi lu tax ñu naan xam-xam moo gën pexe xam-xam dafay dem ci feem mooy talaa pexe dafay dem ci ruse intelligence nag moo gën ruse naxaate ah. naxaate man de damaa jàpp loolu yëpp dafa tënku ci am xam-xam rek waaye xam-xam mooy li nga doon wax jëmale ko ci lu baax ak nga jël choix jëmale ko ci lu bon léegi nag ñoom du ñu wax ne on n'est pas leur juge pour peut-être dire que dañ ko jëmale ci lu bon peut-être c'est de la maladresse ils sont peut-être maladroits mais nervi yaakaaruma ni que war nañ ko bàyyi mooy continuer di wéy ci réew mi ndaxte gis nañ ko pendant les événements fii manifestation yi amoon ci gune yi gis nañ ñuy doon jàpp ay xale yi ñi doon dóor parce que nag fàtte xaju fii ndaxte gàtt na lool ba ñuy fàtte ñu jàpp ay xale yu wàcc école jaawle leen ak ay manifestants daal di ñi ba ñu wóor ba ci waat ca Fouta fële ñu gisaat leen tey ñu déggaat leen xanaa ñoom dañ leen jël léegi dugal leen ci biir région yi pour ku fa dugg rek ñu daal di eh, teg yow. loolu mooy ñàkk fenn. ci yoon bari pexe. ka bari pexe nag souvent léeg-léeg mën na rëcc de mais du sore donc fenn moo gën pexe xam-xam moo gën pexe. en tout cas mi ngi noonu ba tey rek fichier électoral bi ba tey euh, mi ngi noonu. <laughs> foofu tam foofu tam pexe. yaa ngi wax fi si di yaa xam lu tax ngay ree foofu tam pexe c'est-à-dire que on cherche toujours la petite astuce pour pour jàll alors que am na lu gën astuce papa am na lu gën astuce li war a am rek ñu def ko way bu ngeen ñu falee nangam quand je bu ma defee riwaañ ci ginnaaw lu bari ma sunu papa bi mën nañu témoigner lu ni sunu papa Moustapha Niass gàddoo papa baal ma rek ma fàttali loolu <laughs> gàddoo xeer bi taxaw buntu assemblée lu taxoon ak ak dayoo ak gët bi suñu baay bi am Moustapha Niass c'est quelqu'un que le monde entier respecte et estime te dëgg la boroom xam-xam bu mag mais mu taxaw gàddu xeer te ba muy gàddu xeer ñun ak suñu moroom ñëpp a doon tàcc ànd ak moom ci loolu ña ne woon assemblée ña ñëpp a doon ànd ak góor gi waaw lan la moo taxoon mu jaraloon ko mu jël xa moom mu am ay doom yu ñu tollook ñun ñun ñu war a gàddu xeer non moom mu gàddu xeer xam nga lu taxoon parce que dëgg la doon xeex ak principe lan moo changé lan moo wutale mbir mi kon ku toog daal yow na nga ko bëggee na mu la arrangé nga koy doxalee loolu problème la donc yooyu nag na ngeen jëlee woon xeer noonu la ñeneen di jëlee xeer ñii bu ñu toogee def nag su noonu ñeneen jël xeer et ce sera à l'infini parce que injustice du wëy mun na nekk nag benn moment aujourd'hui xasma fichier électoral mu ngi ci trois fois ou quatre fois ou cinq fois bu ma jumee papa ngeen ngeen dimbali ma quatre cinq fois yoo xam ni euh, trois ou quatre cinq je plus yoo xam ni wax nañu problème mu fichier électoral depuis Diouf ci liñ ci jot a dégg bo lan moo tax ñuy am problème fichier électoral. c'est quoi lan moo tax tubaab bi ñoom doo leen dégg mukk ci yooyu. c'est quoi le problème il est simple. il est politico-politicien mooy toujours ki toog moom au lieu mu gérer dëkk bi noo mu ngi gérer nu muy gën ay toog moom mu ngi lijjanti ci kii.